sama yi daleen nag jàmm euh, mu mel ni biir réew mi arrestation yi mi ngi gën di tar di gën di metti euh, ñu jubal ko nag ci partie bi nga xam ni mooy Pastef parce que kële di Amadou Ba de euh, dëkk bokk ci responsable di Pastef yi moom lañ arrêté devant maanaam section de recherche ñoom ñoo ko arrêté ci kanam CNTV muy mbir moo xam ne nag ñi nga xam ne ñoom la bokkal mbir mi xamagul lan moo ko waral ginnaaw bi mu defee émission Ndoumbelane ba pare ci lañ ko interpellé Serigne Saliou Guèye sax ci ay kàddoom mi ngi naan euh, yaakaaru ni propos yu mu waxee ci émission Ndoumbelane bi la parce que durant émission bi waxu fi jenn wax joo xam ni euh, wax juy salfaañe ak ak yële fi nit ñi la waxu fi jenn wax joo xam ne waxi ñàkk teggin la daal wax ji teg nañ ko ci respect teg nañ ci xam-xam wane na ci dignité kon xamul lan lañ ko war ma interpellé ci euh, lu bàyyi ko ci émission boobu waaye daal lu ci gën lu ci mën di xew daal moom yéeme na trop trop trop trop